démantèlement bu bépp base rebelle bu Salif Sadio ak bu Poul Alou Kassine Bassène mu ngoog Mansour muy kon suite démantèlement base rebelle yi nekk foofu. pourtant du metteel chaque année xat yi bu ñu eggee ci découvrir ay toolu yamba commencé koo taal commencé koo yàq faw mu am riposte. daaw noonu la commencé woon ak euh, bi ñuy tas base bu Salif Sadio boobu donc euh, du doon du woon betteel heureusement soldats yi daañu ko waajal ngir mën a jàkkaarloo ak euh, ñooñu le mais problème bi toujours du diggante soldats yi ak rebelles yi li tax ñuy woote pour jàmm dellu si Casamance mooy ñetti villages yi nga xam ne déjà Euh, seen ñëfa dëkk amatuñu jàmm déplacé wu nañu xëy na ñu ëpp ci ñoom ay baykat la ñu woon dootuñu tal seen ay tool ñenn ñi ci ñoom ay ay ay sàmmkat la ñu dootuñu tal seen ak jur am na seen ay doom yu doon jàng dootuñu ko tal déplacement ngir guerre moo metti loolu moo war a tax toujours ñi jiite gàddu ngànnaay yi ca Casamance war xool war bàyyi xel seen i nawle seen i nattangoo seen i dëkkandoo yi nga xam ne saa bu xeex amee ñoom ñooy nekk victime ci problème yi nga xam ne mooy problème Casamance Fatou Abdou askan yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk boor yi yi di xewee ñoom ñoo ci gën a loru kon waaw ñoom ñoo ci gën a loru te souvent da ngay gis ne culture cannabis bi dafay am parfois lien ak rébellion bi en Casamance euh, ce qui fait que bu fekkee ne armée bi dugg na ci da ngay gis ne yenn saa yi dafay tarxiis ba ñi nga xamante ne parfois ñoom la ñuy tuumaal ne li nga xam ne dañoo bokk ci MFDC donc euh, lu baax la loo xamante ne armée bi ginnaaw démantèlement des bases yi nga xam ne rébellion ñoom ñoo fa nekkoon encore song na ko puisque ku ne xam na déjà cannabis si ni muy def ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy utiliser ñoo koy bay xaalis bi fa ñu koy jël après di ko fa investir li mu mën a indi lu mën a nësaxal la paix en Casamance donc encore beneen effort boo xam ne armée bi mi ngi koy def ngir que la paix peut-être revienne en Casamance parce que ñëpp loolu la ñaan mais également pour fexe ba lu jëm ci wàllu rébellion bi du gën law foofu ca zone boobu euh, boobule nag tey xel bu baax ba tax ñu bari di ci yëy yàbbi ñenn ñi sax jàpp ne di Didier Badji adjudant chef gendarmerie euh, service euh, inspection générale d'État ak sergent Fulbert Sambou bu direction des renseignements militaires yëf ci seen tayef la ñoom ñoo orchestré kon seen disparition lee bu ñu sukkandikoo ci journal Le Quotidien ñoom ñi lee dañu leen kon di joxoñ baaraamu tuuma ci enquête interne bi ñuy def ginnaaw bi ñu fësalee ay xibaar yoo xamante ne secret d'État woon ñoon du ci ak Ndiaye Didier Badji ak Fulbert Sambou ñaari gendarme yi kenn gisu leen kenn déggu leen disparition boo xam ne dañoo njortees ne dafa laale ak enquête bi ñeel ñu xam kan moo jox Pape Alé ay xibaar bu nu sukkandikoo ci journal Le Quotidien adjudant chef Didier Badji ak sergent Fulbert Sambou dañoo jegeyante te it ñoom ñaar kenn gisu leen boobu ak léegi ginnaaw bi nga xam ne teg nañu loxo beneen takk der bu ñeel mbirum enquête ci mbiru Pape Alé Niang Pape Alé Niang moomu ñu ko jant bi tuumaal ko lu ñu duppee fausse nouvelle joxe xibaar yu wérul ak information militaire bu ñu ne da ko joxe ca amu ci benn autorisation bu hiérarchie bi démb nag parquet bu tribunal bu grande instance hors classe bu ndakaaru wax na ne ubbi nañu ab enquête judiciaire boo xam ne jox nañu ko brigade prévôtale bu gendarmerie nationale ñaari takk der yooyu nekkoon ci seen i poste ca inspection générale d'état ak direction des renseignements militaires kon nag samedi ba tey kenn gisuleen leen te seen i ko localisé ci bu mujj ca fa nga xam ne moom mooy Cap mu nga kon euh, Mansour ku ci nekk ak thèse bi ngay bi ngay avancé waaye ñu bari jàpp nañu ni que euh, ñoom ñoo euh, sabab li ni mel. waaw tey boo xoolee journal Le Quotidien xaw na junj lu mel noonu ci seen laale ak Pape Alé Niang préciser itam ku nekk fi nga doon liggéey mais man li ma mën a jàpp daal ba léegi mooy ubbi nañu ci enquête maa ngi xaar ba enquête bi egg ci cëppaandaw ji parce que magum jëmm nag mënoo ko xàllal lu mu def. Euh, ak tey ba kanam bu fekkee li ñu wax li ñu foog ni ñoom lañ def muy seen tey ba kenn xëy na ñoo xam li tax ñu daw kon mais man gëmuguma loolu li ma gëm daal mooy li réalité nature bi joxe mooy gis nañu seen ay bagages ak seen ay téléphones gisuñu leen mun nañu foog accident xëy na seet nañu leen ci géej gi ak yooyu man loolu lay jàppandeegum ba keroog may gis lu ko weddi dañu am lien ak affaire Pape Alé Niang dara wóoruma ci kenn ki moo doon dawalal Nafi Ngom Keïta yor wàllu kaaraangeem loolu xam nañu ko fonction am la dañ ko fa yóbbu woon mu koy dawalal est-ce que mun nañu am est-ce que Pape Alé Niang situation dafa nekk crime bu ñu war a ngandal ba ay soldats war a disparaître ñu foog ni ñuy def euh, link boobu mm-hmm. non vraiment c'est précipité teel na trop ñu ngi def enquête nañ xaar ba enquête bi am lu mu wane quoi waaw euh, xam nga euh, ci ci code de la famille dañ lay wax ne un disparu mooy koo xamante ne absence am dafa am et lu jëm ci wàllu dundam nekk en danger. Mhm. aujourd'hui li nga xam ne moom la ñu gis ci ñaari takk der yi bu ñu sukkandikoo ci le procureur de la république mooy ñoom ñaar dañu disparaitre mhm. parce que loolu la ñuy wax et moom mi ngi mené enquête bi Khady c'est une affaire euh, boo xam ne très sérieuse bu ñu déggee ñu ne euh, ñaar ñoo xam ne euh, dañu nekk ay gendarme ba pare bokk ci renseignements généraux dañu disparaître comme ça quand même ñu taxaw ci mais aujourd'hui nga bëgg a lier li nga xam ne mooy la disparition ñaari takk der yooyu ci mbiru Pape Alé Niang ni ko Mansour waxee teel na d'abord et man ba jusqu'à présent le procureur de la République deful benn lien entre démb bi nga xam ne wax na ne dañu ubbi enquête boo xam ne mi ngi door ñu door ko tijji. Mm. dénk ko brigade prévôtale bu gendarmerie nationale deful benn lien boo xam ne am na ci li nga xam ne moom moo ñeel mbirum Pape Alé Niang maintenant ba tey euh, taskatu xibaar c'est vrai que dafay def enquête am ñu wax ne ci journal Le Quotidien aussi bu Madiambal Diagne la jógee lan la ci ak lan moo nekk ci ginnaaw on ne saurait peut le dire pour pour le moment mm. mais luñ ci mën a xam mooy li ñuy ñaan mooy ñaar ñooñu euh, nañu mucc ak jàmm mm. parce que loolu la ñaan ñu feeñ ak jàmm ñu poser wu également des questions est-ce que dañu am habitude di dem ci bërëb boobu di pêcher est-ce que dañu dem disparaître volontairement euh, pour peut-être daw ay représailles est-ce que est-ce que beaucoup de beaucoup d'interrogations yoo xam ne xay na bu ñu demee ba ci biir procureur mi taxaw ne ubbi nañu l'enquête dina taxawaat ci kanamu askan wi leeral mbir mi mu nekk lu leer ci boppu sénégalais yi. mu ngoog Fatou Abdou ñu wax ci leneen mu ñeel euh, grève bu boutiquier détaillant yi ñaar fukkeelu fan ak ñeent ak ñaar alxames gi ak aljuma ji ci seen jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi te diwaanu Thiès association bi ëmb boutique yi détaillant Sénégal yi ñoom la ñuy lu mooy ñi nga xamante ne euh, respecté ñu dogal boobu leen njiitu réew mi jël ne njëgu dund bi dañu koy wàññi bu ñu sukkandikoo ba tey ci njiitu association bi ñoom euh, boutique yi détaillant yi ñu ngi jaay waaye gisuñu ci seen bopp te loolee bu wëyee dañ cee nax a gaañu ñu ondu ceeg moom Alioune Ba bi ñu génnee ci ndaje yi dañoo am mbégteel bu rëy ndax la ñu waxtaanoo neen foofu lépp daara la gisul bi prix yi génne nag nañu xam ne ñun mënuñoo liggéey ci anam yi ñu état bi bëgg forcé ñu liggéey lii ñu wax fii nag moo waral ñu ne dañuy dem grève dem grève moom mooy wane ne duñu ubbi suñu boutique jeudi ak vendredi bu soobee yàlla. ci réew mi yépp ci Sénégal ñoo ngi wax mboolem boutiquiers yi fu ñu nekk ci Sénégal bu dee li nga nekk. dangaa bëgg mu continuer bu dee sa liggéey dangaa bëgg mu ñoŋ ñoo ngi lay ñaan nga respecter grève moo dor boobu waaye responsabilité bii nar a am du kenn kudul état te incha allah produit yi duñ ko jaay ba état bi xoolaat li def ci wàllu yi la ñuy des ba tey ndax association bi ëmb commerçant yeeg industrie yu Sénégal yi ñoom ànd nañu ci boobu boobule eh, doxalin directeur exécutif bi la mu xamle moo di groupe Sénégal wàññiwu ñu frais douane yeeg yu port yi comme eh, ñoom nañu leen ko xelale woon ca waxtaan wa ñu ond ceeg moom Omar si solution ACIS mooy loolu ñuy def dañ ci di fàttali ne nekkuloon ay concertation rek nañ fixé ay prix dañoo waxoon nañ xool fi nga xam ne buñ fa wàññi mel ci port mais amagu dara loo xam ne ni appliqué nañ dañoo waxoon ne pour yoo xam ne ñu ngi ko fay maa ba lañ doon fay ba léegi moom la fay tey boo jëlee lu mel ni ceeb dañoo waxoon ne yéen importateurs yi prix yi ngeen di jaay seer na wàññi leen ko différentiel bi ñu delloo leen ko ñun état barke démb am na kenn koo xam ne dafa taxaw na dootul jaay ndax semaine bi passé jaay na ba pare différentiel bi ñu ko waroon a fay joxuñ ko ko mënatul continuer di jaay te comme état li ko waxoon defu ko moom day taxaw ku ci mënta jaay perte tëj sa boutique toog grève boobu la ñu ne mën nañu koo amal association bi ëmb consommateur u Sénégal yi ñoom ànduñu ca euh, Momar Ndaw di njiit la la mu xamle mooy ba ñuy fixé euh, njëkk yi euh, xool nañ ci bu baax a baax li nga xamante ni moom la grossiste yi demi grossiste yi ak détaillants yi di ñàkk muy sàkk kon ci ñoom ni bu ñu gisee ay lajjiteef yoo xamante ne am na ci ñu fësal xibaar bi ñu déglu ko. nga xam ne moom la détaillants yi wax ne moom lañ bëgg a jàpp nañ ne ñàkk ormu kese la parce que tey boo xoolee li nga xam ne moom moo ci nekk. fanweeri fan nag lu ëpp fanweeri fan ñu ngi discuter ci li nga xam ne moom mooy wàññi yi nga xam ne war nañ ko def ñoom fekkee nañ réunion yëpp ñu def arrêté bi dañoo wax képp ku nekk ñaata nga war a jëndee ñaata nga war a jaayee ñoom boutiquiers détaillants yi ñaata lañ leen war a jaayee nga xam ne demi grossiste moo leen koy jaayee wax nañ ko kon képp koo xam ne yow détaillant yi nga ñu bëgg laa jaay njëg goo xam ne moo ëpp lii euh, arrêté bi wax mais jëlal sa téléphone nga woote service yi dinañ ñëw réglé loolu mais munoo wax ne non damay gréw parce que dañ may jaay njëg goo xam ne moo gën a cher li nga xam ne moom la teguñ ko ci yoon tegaanuñ ko ci yoon bu leen neexee nag nañ génne téeméeri at euh, bu boobaa nit ñi jënd feneen